kenn ku nekk Sénégal bu nekk war nga takk mask moo waral ñu xalaat ñul famille Thierno Djibril Ousmane ak euh, njaboot bi nga xam ne ñoo njabootee ñu dajale mask yi yëpp comme ça ñu jël ko teg ko ci loxol monsieur le maire euh, monsieur le sous-préfet mu teg ko ci loxo monsieur le maire ndax ñu mën koo mën koo mën koo jox askan wi accompagné waat monsieur le président la république si li nga xam ne wax na ko muy euh, ubbi école yi le 2 juin bi euh, muy li nga xam ne nit ñaa ngi si commencé commentaire nit ñaa ngi commencé jaaxle waaye euh, comme jël nañu dogal nañ ubbi école yi ñi nga xam ne ñoo amee classe examen yi ubbi ko donc loolu tamit ñu accompagner leen si mbir mi élève bu nekk mën a am maskam ak professeurs yi ak jàngalekat yi léegi nag yii nag day wane ni yéen a ngi dugal si blaax si xeex bi ndax fi mu ne nii ku gis jàngoro bi xam na ni kon jamono ni am na taux positivité bu bu élevé surtout transmission communautaire yi te transmission communautaire yi lenn waral ko lu dul manque mesure yi nga xamante ni ay nit jàpp nañ ni foo bi ay foola la mbas bi ay foola la ba duñu jël mesure barrière yi mm-hmm. dem ak dikk bi duñu duñu toog te yooyu day gën a metteel état